day da di féexal yow sa xol laaj la balaaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga da di jaxle na ko diw mo dal di lay gagant yow leral la nag loo xamuloon Cheikh abdou Khadir xali serigne bi ñu sopp ko di yëmm la lo lo lo lo lo jafé xam la te naqaree wax ndax Cheikh abdou Khadir mom moy seigne touba ku ko xam lenn rek nga ko xamee mooy jaamu yàlla ak jariñ jaami yàlla yi. man de dama daan faral di wax ne ku bëgg a gis nitu aljanna buy dox ci suuf xoolal Cheikh Abdoul Qadir Mbacké radiyallahu anhu innamal mu'minuuna allaziina izaa zukkira wajilat quluubuhum ba aaya ji jeex damay gëm ne bu doon am mbubb dañ ko sant Sëñ Abdou Khadre sëñ Abdou Khadir moom mooy sunna lenn rek la yónnante bi def ci adduna bàyyi fi te sëñ Abdou Khadir mosu def te waajaloon na wax ko man ma ki nga lañ yebal rek ñu ngi tuddi ñu wax ne ku gis sëñ Touba wax ne ku gis dool ak askan kay nit jëm <laughs> kay tudd ju xam nga li tax mu dafa bi ko fal xayral imaam danaa la wax nag kañ la bis bam ganee adduna moom fa la ñu naa daarul xalim moom la walaf yi waaye ndaam seex abdurahmaan fa won muy ñatti fan ci utam xarit serigne bu mag bii ni bërit ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy nañu ma wol mu ñew ma wax ko lol masul xew barab bi di alim alimil kabir ñu gën ko xam ci ndam muy fi nga xamne li ëpp ci njabotuk serigne bi ak waa këram ñépp ci loxoom lañ jaar muy Serigne Abdourahman Lo mu jàngal leen alxuraan ba ñu mokkal ko mokkal gu wér bind ko it bind mu rafet fii ci ndaam bokk ci barab yi nga xam ne lu bari ci njabootu sëriñ bu mag bi fii lañu ganee àdduna kon muy barab boo xam barab bu am jeexit la ci yoonu murit barab bu ami jeexit la it ci Cheikhul Khadim ci muharram ni bis bi nga xam ci lañu yàlla baax jëmm ji tedd joojee di Cheikh Abdoul Qadir ibnu Cheikh al Qadim Sëñ Abdoul Qadir nag moom mi ngi ganee àdduna ci daarul alimil xabir ci ñetti fan ci muharram 1333 hijriya loolu mi ngi dëppoo ak ñaar fukki fan ci novembre 1914 xam nañ ne bi sëriñ bu mag bi jógee ci yéen jëm njaareem jaaroon na daal ilmul xabiir am na yit lenn ci njabootam ñoo xam ne fi la leen daaloon am na diggante boo xam ne nag soxna Aminatu Buso mi way juróom fi la nekkoon ba fi la sëriñ Abdou Khadir Mbacke ganee àdduna bi nga xamee ne nekk nañ njaarim sëriñ Abdou Khadir gane ji ba sëriñ Abdou Khadir gane la la woo maam Thierno Nikodoma Bagangadamdam, Badare, Toprogan Gog, to do wax ko nam koy tuddee lépp ba mu ko ko waxee te ni ko nag ko gan googee kat muñ fonk la eh, fi, fi nga jógee tey di ko tuddi ba ba ngay yegg képp ku la fi gis rek noonu la ko waxe dégg nañ xabaar ba mu waxoon ne ko euh, fi ba ngay dem ba ba ngay dellusi si koo fi dajeel ñu jégal ko am na ñu wax ne booba ma nga njaareem waaye am na ñu wax ne it booba mi ngi tuubaa di sancaat kër Touba gi nga xam day mel ne kon sëñ bi ne ci moom nekkoon ko na dem joxe ko tur mel ne wax nañ ne maam Thierno ndax yërmaane jaag yéwén ga tax naa ba muy dox fu mu romb dañuy woo nit ñi ñu génn gis ko mu door a jàll. maam Thierno mi ngi ak juróom-ñaari ñoo xam ni ay gawar la ñuy wari fas ndax boobu oto amul dañuy wari fas rek ñëw bi maam Thierno jógee ba nga xam ne mi ngi ñëw jëm si ndaam di ko tudd si buñ rombee ay néeg rek buñ seeni ay néeg rek sëñ bi day daal di wëlbati fas yu jëm jëm ci néeg bi bu demee comme ñu man di doon mu ne leen Eh, na ngeen wax ne ñu génn ñu nuyu ma ndax dama leen di dama leen di siyaare dama fee jaaroon rek doon leen nuyu di leen siyaare ngir bëgg texe googu ñooñu am ci noonu la def jóge njaareem ba yegg si ndam tudd ko ci ndigalul sëriñ bu mag bi tudde ko Abdul Xaadir ci noonu ma ko waxee tur wi ay wax am na ci sëriñ bu Xaadir Mbàkke kuñ ko tuddee ñetti wax danañ ko ci wax benn bi mooy maam Abdul Xaadir bi ma tudd sànq nga xam ne maamama ndax mook ay Aysa Balla mi jur soxna Kanni mi jur soxna Aminta bu suñu bokk ndey ak baay di taaw mam maharam doonoon borom xam-xam bu ràññiku am na ñu jàpp ne moom lañ ko tuddee am nañu jàpp ne Cheikh Abdul Qadir Jilaan lañ ko tuddee ndax ci wàllu ruux seqoon nag Serigne Touba ba wax nañ ne sax daan na feeñu sëriñ bi di sàkku ci moom turandoo ak it ñu jàpp ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam lañ ko tuddee ndax Serigne bu mag bi bari na ci ay turam ñoo xam ne. abdu nangam la ñuy wax waaye yonentu ay salaam la si jublu ndax yonentu mooy abdullahi mooy abdul ahad mooy abdurahman mooy abdu yëpp abdul xaadir kon ci tur yonentu bokk yooyu yëpp yu ñuy yu ñuy wax la yoo xam ne xëy na bu ci nekk ñi koy wax am na luñ mën a wéeru waaye daal jàpp naa ne bu bu mujj wax mooy jàpp na ci turu yonentu alayhi salaam la moom lay gën a lëngal ndax ñi maaseel ñoom ñëpp yonentu alayhi salaam la leen tuddee ñu jiitu tuuti ak ñi ko jiitu tuuti kon loolu mooy abdul qadir gi martaba boobu koo xam ne bi ngay ñëw ci jamono moom nga ñëwaale nga xam ne danga ne cëpp rek sa daraja àgg ci ka lay joxi tur kum taseet ñu jéggal ko ba kër muy delsi kooka bu fi nekkee te yaa fu sut farlu di liggéey guddi di liggéey ba bëccëg ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom benn li mu abdu la dund kon jàpp naa ne ba muy dem la mu yóbbaale xel du ko mën a xalaat. ci sëñ Tuubaa wax ci sëñ Abdou Khadir te ci mujj ñi la wax ko ci ñu njëkk ñi xamuñu nag ci sëñ Abdou Khadir la xamuñu ci Thierno la waaye mi ngi ci seen diggante rek waaye sëñ bi daal wax na ko moom waaw <laughs> te wax ko ci ñi ci des ñëpp. soxna Aminatu Boussa di way juróom jigéen muy koo xam ne it baree bari la bokk sëriñ bi sëriñ Tuubaa muy juróom waaye nijaayama di maamam mu bari lool lu mu askanoo ci askanu maam Maharam ndax maam Balla sa mam ahmadou soxna bousso mam ibrahima awa ñak ñoo ko sekk ci maram ci anam yooyu amna ko ci mbacke waaye bu fekkee nag amaan ak anam ci ahmadou farimata ma nga xamne ni moy taw maram nak fo fo foofa asu ma nga xamne mo mo demone bayen am kan ay sa ay sa ak soxna ay sa ñoo ñe ñet ñoy ñoo bokk ndey ak baye bo nga xamne amna am na ci anam yo xamne ne suñu am ko ci biir mbacke Eh, yetti yenti yetti anam yu wér anam gi mu am ci kër eh, maamoraan sëriñ muy muy xaadimu sunna noonu mooy wàllu eh, soxna Aminata Bousso moomu xam nañ sëriñ Bousso bi mooy way juram xam nañ sëriñ Bousso be ak soxna Jaaratullah ñoo bokk way jur góor awu jigéen kon foofu mbokkum sëriñ bi la mu ko jege waaye soxna Aminata Bousso moomu soxna Aminata Kanni lañ ko doon wax soxna Kanni mi ko jur domi serigne Mor Jee la serigne Mor Jee maam Ibrahima Awa Ñang maam Maharam waaye soxna Kani moom it eh, Aysa Balla ko jur aïssa Balla ak fati Balla ak Abdul Qadir ño bok nday ak bay maam Balla aïssa moy sen way jur waaye bu fekkee nag amaan nag anam ci Ahmadou Farimata ma nga xam ne nii mooy taaw maaram nag foofa foofa ndax Astu ma nga xam mo moo dem ba yéen am kan Aysa ak soxna Aysa ñoom ñooñee ñett ñooñu ñoo bokk ndey ak bàyyi foofu nga xam ne am na fi yenti anam yoo xam ne Sëñ Abdou Khadre am na ko ci biir Mbàkke eh, yetti yenti yetti anam yu wér ak anam gi am ci kër eh, Maam Mor Anta Sali muy Xaadimu Mustafaa wax nañ ni Maam Abdou Khadre moom moo doonoon taawub Maam Balla Aysa biñ ko faate fii ci Bawol la fi maam Balla tuxoo doon dem Saalum looloo tax mu des ci ngay euh, kon soxna Faati Balla mi nga xam ne mook Aysa Balla ñu bokk ndey ak baay ak Abdul Xaadir soxna Faati Balla moom mooy woy juru sëriñ Mbàkke Buso bi mu nekkee sëriñ bu bi ba sunu borom dogal la mu dogal ci lañ fa indi soxna Kànni mi nga xam ne doomi Aysa mi mbokkal ndey ak baay loolu waral sëriñ Mbàkke Buso ak soxna Aminta Bousso ñu bokk benn waajur waaye sëriñ Mbàkke Bousso nijaayam ndax moo yaayam seen ñaari ndey bokk ndey baay. mbokk mi woon daal waaw koo xam ne nii eh, ndax fi ne bu ñu ne lu mbokk sëñ gaawaan nga daal di wax ne a ah, sëñ gaawaan de moom ba xam xamee ne bokkagut sëñ bi dara mooy nijaay soxna Aminta Bousso ndax soxna Kani moom moo de mooy soxna Kani ma nga xam ne moo jur eh, Euh, soxna Aminata Bousso de moo doon doomi nijaayam kooku kon nag euh, loolu la doon ci moom ci kooku anam bu ñu leen lu doon ci ci ci sëñ Gaawan loolu ngay daal di njëkk a wax bu ñu leen sëñ Mudu Maam itam nga daa Ibrahima Kane moom ak ak Mor Jaay ñoo bokk benn baay te kii jur kii kii kii kii ñoom sax la demee ci Mbàkke ku fi mbokk rek mbokk ma noonu la demee ci ci ci askanu Mbàkke ak Bousso bi daanan ko xëy ak suba teel di ko joxañ sunuy biteel mu di nu muuñ ngiruk cofeel kuy dàq njàqare la woon sëriñ abdul xaadir askanoo ci mbàkke ak ci bi di mbokkum ñu baax ñépp gane àdduna ci réew mi jàngee fi ci lenn ci mag ñi toppoon sëriñ Touba ku mel ne sëriñ daam abdurahmaan ak sëriñ mbàkke buso ba ci fànni xam-xam yu bari te wuute ku ne mu wax ko la nar dafay nag bi mu demee ba am juróom-ñaari at ci weeru gàmmu 1340 dëppoo novembre 1921 ci lañ ko indi dalal ko sëriñ bindal ko ci àlluwam ñaanal ko boole ko maam aw bu sumu dellu si ko ndam mu ci sëñ ndam di jàng di jàng ba xëy na mën nañoo jàpp ne am njàngum alxuraan xam naa yeex ndax kon mënoon na àggal ci kanam sëriñ bi xam na juróom-ñaari at ndax 21 ba 27 ginnaaw bi sëriñ bi ñëw ñibbisee ba nag ci lañ ko jël si sëñ Mbàkke bu sa jël si ko yóbbu ko Gédé boole koog nijaayam ñuy wax sëñ Ibrahim Ndiaye ndax sëñ Ibrahim Ndiaye moom itam soxna Asta Aysa mooy waxee juróom Asta Aysa ak Kanni Aysa ñoo bokk ndey ba baay te Kanni moo jur soxna bu so kon mën naa wax ne sëñ Ibrahim Ndiaye doomi ndey soxna Aminta la kon nijaay sëñ Mbàkke sëñ sëriñ Abdou Khadir la moom la ko sëriñ Mbàkke booleel ci ronam la àggalee alxuraan ba bind kaamil ginnaaw alxuraan ju rafet alxuraan ju rafet eh, bi mu bindee kaay bi noppi nag ci la dellu ci sëriñ Mbàkke sëriñ Mbàkke tàmbali di ko jàngal xam-xam am diir ginnaaw bi ne la ko booleeg doomam sëriñ Xasan Buso nga xam ne mën nañu wax li ëpp ci am jàngam sëriñ Xasan nag ko jàngal muy tàmbalee ci téere yi ndey ba ci mutawalaat yu mag yi foofee la jàngi téere yëpp yi nga xam ne baaxoo nañ ko jàng ci wàllu xam-xam mu ñoroon ko loolu am na ab diirit boo xam ne jógee na fi dem njaareem ci sëriñ Mouhamad dem waaye yàggu fa mu del siwaat gede dafay daal àggale ba doon fóore ju ñu xam ci xam-xami sharia yi ñu daana faral di bind di bind ay téere sax am na xerzul muslimin boo xam ne mas nañ ko fay mool Sëriñ Abdou Khadim Mbacké ko bind def ci ay ñaan ak liimaay yoo xam ne am solo ci jullit la teewul Sëriñ Xaadir li nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa yare woon ñim àndaloon mooy defar leen ñuy defarewaat Sëriñ Xaadir it bu dee wàllu xam xam am xam-xam di ko xam le loolu amoon na ci liggéey na ci liggéey bu rëy gis nañ ay mbindam gis nañ am njàngaleem ku ne xam ne ne jotaayub suñu xaadir am njàngale la woon maanaam fu mu toog bari na ñoo xam ne ci moom lañ xamee siiratu Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ci siiratu saxaaba loolu moom siiw na ci jotaayu suñu xaadir xam-xam la doon dundal. bari na lool ay lettres yoo xam ne ko bind ci arab luxa luxa luxa arabiya luxa bu kawe bu jéggi dayoo boo xam ne. man mii di wax ak yéen am naa ci benn lettre boo xam ne moo ko bind sama maam la ko bindoon doon ko jaale soxnaam su génnoon adduna euh, ak yu bari yoo xam ne yeneen yoo xam ne ci jëflante diggante mbokk yi yoo xam ne boo ko yëree da nga cee mën a xamee euh, aslëf ci mustawa bi nga xam ne amoon na ko ci wàllu xam-xam boobu kooku mooy sëriñ Abdou ci wàllu fi mu jaar ci jàng ci moom gisee su ko faneen ma waxal tuut ci maandu gi bax daat ma son na faa jóge am ab bitig wàcc di jënd lum bëggoon borom bitig ba nuyu ko daldi ni addiyaal na ko mu ne ko njëg gi téye ko kersaala jàpp du leneen addiya ba lépp lum daan def daan ci bàyyi xel sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa mu doonoon kuy jëmmal lii di al bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa lool ba nuru woon ko sax ci jikko woo woon alxuraan jikkoom yooyu tax na ba jullit ñépp ko nanguloon moom Cheikh Abdul Xaadir ak tarixa yépp taxawaayam ci yoonu murid di taxawaayu ab defarkat di dimbale jaam ñi ba képp ku massa jëflanteel Cheikh Abdul Xaadir gërëm nga ko ngërëm loo xam ne ngërëm lu kawe la di tukki jëm Dakar fekk mu nekk ci saxaar ñooy daw daa ak barki dem moom la leen di denk ba tey ma di sax jaamu yàlla moo di ñu sax ci jaamu yàlla ci sunna ci sunna sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam day wattandi boppam. day wattandiku ak tooñ. dugub Sëñ Abdou Khadre moom jenn jikko rek la mooy nitu yàlla la rek lépp lépp biir biti dama daa wax daanaa wax ci sama xalaati bopp yi ne Cheikh Abdou Khadre xaali sëriñ bi ñu soppiku jëmm la. moom jikko jikko ak si buñ foofu moom du lu ñuy mën a mel ci jikko man de dama daan faral di wax ne ku bëgg a gis nitu aljana buy dox ci suuf xoolal Cheikh Abdoul Qadir Mbacké radiyallahu anhu murit saadix la murit da ko sëñ Tuubaa tënkee rek jëpp solo mooy bëgg ak gëm ak liggéey ak joxe cooyta la jeexal léppam ku bëgg sëñ la bëgg gépp nag dana liggéey sëñ ci bëgg sëñ tubaa bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa dafa mel ne da ko ca mottaleel ay jéego doon dox ku ne xam ne ne dundam gépp gépp moom ci sunna rek la ko jeexal man doobaat yëpp yëpp da ko màng waxuma laag la neen waxuma laag nag ay sunna fat man doobaat yëpp ci tooginam ci buy dox ci buy wax ci buy dugg ci oto bi lépp rek la ci charia la ci sunna santaane loolu lay sàmmanteel ak ko moom dafa jëmmaloon lii di al istiqaamatu ci ñëpp xamoon ko ci doxinam ak waxinam. nee na mi ngi tey wéy ci ndigal Sëriñ Tuuba. tey bu ñu nee nag day melokaan woo xam ne dafa ëmb melokaan yu baax yépp ci diine ndax mooy. li diine bëgg ci doomu aadama bi mu mel noonu ci wax ak ci jëf bañ a ëpp bañ a yées euh, ne ko nit ñépp di waxee rek boo bëggee gis sëñ Abdul Xaadir te bëgg koo xam rek nel alquran juy dox la boo bëggee xam sëñ Abdul Xaadir te bëgg koo nitaal rek nel sunna suy dox la waaw Abdul Xaadir moom mooy sunna keroo dama am sama benn mbokk keroo bis bu nga xamee noppi nañ ci sëñ Abdou Khadre bi def si laa dikk ne ko sëriñ mu ne ma ne ko sunna faatu na tey mm-hmm. sunna faatu na bu doon jëmm mu ne faatu mm-hmm. ndax ni ma la ko mën a tënkal daal ci gàttal loo mas a dégg ñu sëñ yónent bi def na ko rek sëñ Abdou Khadre def na mm-hmm. rek la yónent bi def ci àdduna bàyyi ko fi te sëñ Abdou Khadre mosu koo def te waajaloon na ma wax na ma ko man ma dégg muy lixiti gaaw sëriñ Tuubaa boo xoolee fi mu jaar daaru alimul xabiir daara Serigne Touba ju mag ji fa la gane ñi ko séq ñépp niti diine lañ niti xam-xam niti njub Serigne Dame mi njëkk nekk ci loxoom di jàng koo xam ne wax nañu ne niñ ko xamee ñëpp daan na naafila alxuraan karim ci ñaar rakka jikko si yëpp dëgg dëgg dëgg nag mooy alxuraan jikko si yëpp daal mooy alxuraan seen doxalin lu baax lu lu lu baax amuñ amuñ amuñ si defar amuñ si yàq waaye bëgg lu baax lool te bañ ko booleeg dara bëgg ñu baax lool te attan si lu nekk lu baax jaral ko lu nekk. mooy nit ku dëggu la nit ku am diine la nit ku fonk charia la murit saadix la ku bëgg sëñ Tuuba la. ku ko gëm la ku yërëm bindee fii la li ci gën a doy waar nag sëñ Abdou Khadir gisul lu kenn am waaw mboolem amaam yi àdduna yi lu nit bari la bari la gisu ko waaye gis naa ci moom jikko yoo xam ne la ma képp koo xam ne jaxasoo nga ak moom te dégg yonent bi day mel ni moo ko yar loolu muy dëgg ci moom mooy jikkoom ñu ko yàlla bindee di gën a farata ci jikkoom mooy du soppiku mu guddi ak bëccëg wenn mel rek la yor. Cheikh Abdou Khadir bu ñu wax gëm yàlla da ko jëmmaloon ci lépp mooy wéetal suñu boroom nga xam ne wéetal suñu boroom wax ko moo gën a yomb waaye moom daf ko doon dund ci léppam ci tasarufaatam yépp bàyyee woon boppam yàlla wakiirlu ci moom waaye li li gën a kawe ci gëm yàlla mooy gëm gërëm dogalub suñ borom maanaam lu suñu borom def mu neex la loolu sëñ bu ku ci fesoon la kenn musta xam aw naqaram ci lu dul fu ñu xottee war may diine cër yi am ci diine ku xam danga xam ne du lu jaaxle waaye taay wi ko yàlla waajal ak jagle gi mu ko jagleel moo ko may cër yooyu muy koo xam ne nag diine rek lan dund jaamu yàllaam nag moom foo ko gis da ci aw way waay goo xam ne kenn mm, daanaka néewuma waaye leen lu mel noonu ndax waxtu muy war a jàng alxuraan eh, da koy jàng waxtu woo muy wara julli eh, dara mënu ko taqalee julli waxtu woo muy war a beru di def ay wirdam eh, bu see rek loolu la dana ko def diiru ak dundam te loolu yombut ndax matale ko jafe na lool. bëgg yonent bëgg goo xam ne nii sallallahu alayhi wa sallam rek lay wax di jaar di jaar di ci tudd euh, jëmmi tur wi ndax bëgg mu bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa it nag ci sariya lislaam ba ñëpp xam ne liggéeyal na ko ci liggéey bu ñëpp teg bët. waxuma de murid waaye ñi dul jul ñi dul murid sax te day te nangul yàlla def ñoo ko nangul ne mooy imaamul imaam yi imaamul aima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 ko Cheikh Abdoul Ahad ko mu nekk imaam jumaa yi Tuubaa bu Alhaji Modou Fadal wàcce bi liggéey loo xam ne mën ngaa jàpp ne 1968 euh, bi Alhaji Fallu wàcce bi liggéey ba 1990 Sëñ Abdou Khadir ilimaani jumaa yi lépp lu suñ borom mos a dagal dogal rek da cay sant suñ borom subhanahu wa taala lépp lu doomu aadamay naqarloo ca mu jóge suñ borom Cheikh Abdoul Qadir mom. da ca dan gis dogalou suñu borom dar, dan ko ci gërëm kon ci gëm yàllaam loolu ak wakilu ci suñu borom loolu suñu suñu du xaadir ñëpp xamoon nañ ko ci mom ak wakiilum àggoon na ci baye bopam yalla ba li nga xamne aada la mu dagan sax yenn yi muy lu melni lepp Cheikh Abdoul Qadir daawu ko def li ngi def wut ay kay di ay yenn fagandiku yi sax Sëñ Abdou Khadir am na ci yoo xam ne daawu ko def ngir bàyyee boppam suñu borom subhanahu wa taala litikaaf rek la defutoon ci lu yónent yi mës a def mhm. te teewu ko waajaloon na ko nag dafa waxoon ne nag di litikaaf ci jàkka jàkkay kër gi wala foo xam ne ajuma fekk ko fa mhm. te mënta julli ji ajuma moo taxoon mënu ko mënu ko woon bi mu doonee xalifa nag mu daal di obligé nag ne nañ daal di gaaw defar ci biir jumaa ji mhm. ay ay ay néeg yoo xam ne ma sax bi daal wax ne ma dama bu ko fi war a wan ñeent ak juróom bu bu ñu ci eggee dama ko bëgg a def bu ko defee yéen itam ku ko ci ku ko ci soxla mën ko faa def kon la daloon yonent bi dal la ko yonent bi ci dafa waxoon ne am na ah, ci taaswa wala asra dafa waxoon ne fekk bu bu so bu bu ko fekkee dana ko def yàlla dool ba ji benn mu bàyyi ko bu ko wax moom itam loolu ko loolu rek waaye lépp loo xam ne nitu suna dana ko def lu na rek suñu avocat def na ko ba jeexal ko te na ko daan def na ko yónni daan def rek na ko leen boo xam ne bokk na ci la gën a yéeme diggante boobu lim fi manqué ay ajjuma mënees na ko wàññi am na ci diggante boo xam ne mooy diggante bi mu demee Makka nga xam ne le 8 novembre 1976 ba le 14 décembre diggante boobu ajjuma yi fi nekk jiitu ko ak ajjuma ji nga xam ne moo jiitu bi mu wàcc liggéey yu dul yooyu rek kii ñaari fukki at ak nangam yooyu sëñ Abdou Khadir mësta wuute ajjuma ci jumaay Tuubaa loolu nag jàpp naa ne du dëgg la ak dogoo nga ci pas-pasa nga ci waaye jagleeg suñu borom ak ki nag ndax wéré di yaa ngi fi soxla adduna yaa ngi fi yëpp mësta gàllankoor seen Abdou Khadir man toog na ma moom ca koso mu ne ma lenn rek laay ñëwee nit de nit ku ma gën a ragal yàlla wala nit ku ma gën a gën a gën a gën a mën a jaamu yàlla kooku rek laa ñëwee de waaye ñëwuma ma ne ah, damaa defe na yooyu yar de kenn ak si wu ci ci dee dee ci yow. mu ne ah, loolu de laa bëgg moom laa ñaan sama borom it fu ma toll. Eh, dafa am jikko yoo xam ne nii mën naa ne ña ko ci fekk bay wut muy maandu doylu tabe goru ak dëggu ndax loola day jikko ju solo foo gisee coow ci àdduna rek jikko yi dafa dajagut li ma la ne ci njaal benn nga euh, jamono dañoo soxla ko mel ne sa yëpp xaar ngir référence bu jëm ñep tënku won ci nim doon doxee do dégg ko lo dégg ko xeex lu xaadir mom yalla yëpp da koo won ci niko sunnatu suyontu bi alayhi salatu daan daan daan bi harfin euh, bo xolé ci nim daan sammo waxtu nim daan sammo ay waxtom ci jaamu yalla nga xamne du fat muk muk muk waxtu ak len lu nek waxtu wam ko daan def waxtu wam ko def ci la koy def ñi ko xamoon àggoon nañ ci nim tënkoo woon ba daanañ wax ne waxtu sàngam am na ñoo xam ne wan nañ laa wax boo demoon ci Sëñ Abdou Khadre tey la koy fekk mu nekk ci muy ku amoon farlu ci jaamu yàlla yi ci waxtu wañ koy def ak nañ koy defee. waaye boobu nga xam Sëñ Abdou Khadre dëgg dëgg dëgg neen murit saarix buy dox la it man mi nga xam ne toog naa ba tàyyi ak moom càmbar ko natt ko ci. pas-pasam ci serigne bi gisuma ko ko jot ci taalibe gisuma ko comme yomal ci taalibe gisuma ko. lu jamono khat khat diir man limu fek lepp aji bu ju masaa jot dana jóg dem siyaare si barab serigne touba bi jox ko war ma ju mat sekit nak ndax musta dug mukk ci bir barab bi sa yu àggee pegg ba lay tok ñu dal ko fa ci adam mu siyaare ñaan ak julli ñëpp dëppaat bu dee bisu magatu ba gam xam ne na sax waxtu wu jotee ci biir néegam lay def siyaare bi day woote nañ leen def siyaare bi sëñ Tuubaa bi kon mosu koo jëndal benn jamono mooy ajjuma fu mën noonu. nga xam ne sariya <coughs> la fab teg ci euh, fab tànkam teg ci sariya dara mënu koo tax euh, jëm feneen adduna mënu ko euh, alal mënu ko dara mënu ko kenn mënu ko yóbbaale ci lenn lu àndut ak li nga xam ne moom la sama borom digle dara mënu ko yóbbaale ci dara li nga xam ne lii moom la sama borom tere waaw loolu dara jaralu ko. ngor it mu sam ko ndax borom daru mi dana waxna naa suñ ma le ngor ak diine ngor lay jël ndax ku amul ngor do am diine mu sam nak ngoram hello ma taxawayam ci yoon wi taxawayu taxawaayu defarkat la won mom liñ gëna mëna jang ci mom moy da doon jëmmal ne li yalla bëgg nit mën ne mel lol nak bu la bari dañuy japp ne ndigal yalla yi mom da ngay le waye matal dal mën ta nek mu daal góorgóorlu xëy na ba kii waaye sëñ bu xaat dañu wane li yàlla bëgg jàmm na ne mel jëmmal na ko ci pas-pas ci jëflante ci jaamu diggam rafetal diggam bu mu ak digganteem ak jàmm ñi mboolem ku ma sa seq ak moom rek ba nga génnee gërëm ko ko koo xam ne ni fi nekk lépp li yàlla sant lépp njiitam ko waaye diggam ak njabootam diggam ak taalibe yi diggam ak mbokki jullit yi diggam ak jàmbur amuti amut ci kenn xarmu yàlla. li ñuy wax ab jullit xaqan ku koy wut ba àgg si Abdou Khadre moom foofu nga mën a yem képp kuy dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gisoo boo gisee si Abdou Khadre yaa ngi taxamu gan astar rek xool ko ci yonent bi lu la ci moom rek boo xoolee gis ko ci moom loo daan dégg ci bi sallallahu alayhi wa sallam te xamoo ko boo xoolee sañ bi da nga ko ci gis ci wax ak ci jëf gëm gëm bu gëman boromam ak doyloo gëm ko doyloo woon ak wakkiilu gi nga xam ne wakkiilu woon na ko ñoom ak bàyyee gi ko bàyyee woon ay mbiram ak wóolu gi ko wóolu woon neexu caa fekk istiqaama ci yooyu lay feeñ feeñe du rekk ay wax waaye day feeñ ci gëm yàlla nit ki di feeñ ci ak jaamum yàlla waaye di feeñ ci ni muy rafetalal ak jaamu yàlla mooy ni muy ni sellale la muy def ni muy dëggoo ca la muy def ci xolam nga xam ne la muy def suñu borom rek la ciy jublu ni ko yonte bi alayhi salaatu tënke woon ne an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak Cheikh Abdou Khadir ihsaan boobu da ci ku ci dë ku ci dëgëroon ab taxawaay la ci xaqiqatu mooy tasawuf turu si nga xam ne alaaji Maodo Sylla rahimahullah moo ko tuddee woon imaamul aimma wax ne yàlla dogal moom ilimaan yi ni fii ci dëkk bi moo doon seen ji ndax it nag mooy seen kilifa waaye ma ci yokk ni yàlla defal ko tawfiq nag mooy abul ayim njabootam gépp ay imam lañ nag lu am solo loo xam ne day wane dëggal jëfi suñu borom jëf du nangu ndax moom lu yoonam nekkut yoonam néew ci du jëw du wax lu mu warut a wax euh, doylu dafa am solo ci jullit mu jógee ba tey lu mas am doy na ko lu mas a am du ko wuti ndax koo xam ne mës ta leb te du leble boo ko doon xool ci jamono bariwut ndax nee na ñàkk mooy soxla dëgg la naam waaye leb damaa xam ne saa yoo lebee nit saa yoo ko séenee sa xel ca bor ba ca la njëkk dem boo taxaw julli sax boo ko séenee julli gi dootu am dootu baax kon nag du leb lu lebal nit it ndax boo lebalee nit bu mënta fay si da ko ñàkk ñàkk sa kon du ko def. koo xam ne dama leen daa wax daal koo xam ne kii daal bëgg nga doon ab xaritam moom bu waxtu nodd jotee moom mooy jiitu ca jàkka ja jiite nit ña. koo bëgg a doon ab xaritam nag fexeel ba bu geesoo na la seen ca sàppe sa loolu daal moom lu ko ñoroon la moom. kon dafa boole woon e, tënku ci saratul mustaqim tënku ci sunnas muhammad sallallahu alayhi waaye li nga xam ne mooy ñetti wàll xaaji diine yëpp muy liimaan lislaam lihsaan si bu xaadir da caa jëmm woon moo tax ay melokaanam. E, yu bari la yoo xam ne euh, waxtu wu nekk war nañ koy jàng war koy roy waaye mën nañ caa tënk rek li wax salaamatu sadr koo xam ne du jàppal kenn dara ci xolam mooy Cheikh Abdou Khadre maanaam du fanaanoo dara jàppal ni dara loolu Cheikh te nii mu daa joxey ganam noonee la daa joxey dëkkam dafa meloon fi nun ñam ñépp ko tàqamtiku woon mënul ganam te lay dëkkam nim def ci gan lay def dëkkam day bil yaatal kanamam di faj ite subaam ba ngoon day muuñ di ree du wax ca kaw kenn du fa jóg mu di ko jëw sëriñ Abdul Xaadir di ko xam ne ku daan jokk mbokk la fonkoon njabootuk sëriñ Tuubaa gi lool daan leen toppatoo saasu su ne di leen gane ji ci barab yi wuute daan leen taxawu ci xew-xew yu bari bëggoon ay magam lool ay magamit bëggoon ko lool te doyloo woon ko ci lépp kañ laaj di muuñ moom lanu jiili mii na loon te doo fa ñëw mu di la jox nga génn dem mu di la ñax dalay defal te du la nax day bég ci waaju ñëw di ñaan mu tàmbali sëñ Modou Moustapha sëñ kenn ku nekk joxoon na la cërëb sëñ Tuubaa dox ci yow ak bokk jox la war ba jëm la war a jox jëpp daan jóge gare altine jot ñu yandu si sëñ Modou Moustapha mu ñu waxtaan dañu war a waxtaan bu ne saxaar na sëñ Fallou itam ajjuma ju jot mu ñëw yandu ko julli yandu kër sëñ Fallou ba ngoon mu dellu gade ba ni mu ñibbisee ci dëkk bi mbokk yi de moom ñépp la yemoon wa ah ñi ko ñi mu bokk doon kër sañ bi ñim ci magoon ñëpp da leen war ma yërëm yërëm leen di dimbale ñi ko ci màngoon ñëpp mu war maa leen teg leen ci kaw ku ñëw ci moom mu teral la ku ñëw ci moom itam mu dem ci yaw muy nit koo xam ne ni mu def jullit ñi ni mu jàppee taalibe yi ni mu jàppee njabootu Sëñ Tuubaa gi ñëpp war nañ cee jëf royuwaay man de ci sama fàttaliku bi ma njëkkee gis Sëñ Abdul Xaadir mu ñëw kër Sëriñ yi bu fas lay war. sareet euh, watiiru fas lañ koy takkal boobu oto yombagut gannaaw bi lay doora am 403 ba ak 404 ba waaye booba la tàmbali woon di ñëw kër sëñ Abdul sëñ Soñ bu di dakk al alxames dafa yendu si yaa ne booba la gën a jege fu fu fu mu ajuma bët sa di gaaw xëy na ñëw Mbàkke gaaw dibéer altine talaata alarba alxames mu xëyewaat Mbàkke dellu Tuuba ñu daal mu suñ ca Mbàkke mu suñ ca Mbàkke léegi loolu soxla ci awañam hmm. hmm. ngir bëgg Mbàkke rek taxoon na mënuñ ko def bëgg Mbàkke mooy bëgg Sëñ Tuubaa rek taxoon nañu ko def ak waa kër Sëñ Tuubaa bu fi seen nett la ma ne ma xam nga sëñ champs yi bu li tax du ma fa di gëjee ma dafa dem lu bari ma ne ko déedéet mu ne ma nit dafa mënta ñàkk ku mu waxtaan waxtaanu xol te bu ma gisul du ko def kon moom gannaaw bokk yi leen yàlla boole day xaritu xolam di wéttalu xolam boobee laa tàmbali gis mu di fi ñëw di fi yendu alxames te buy ñëw ngir won la ne sëriñ Cheikh bi rakkam la waaye kenn ku ne ci doomi sëriñ bi sëñ bi lay xool ci yow ba bu lay ju bu lay siyaare si day am pas-pasu sëriñ bi lay siyaare ba faaw mu wut lu mu àndaale jox la ko ngir sëñ bi. am na sëñ Tuubaa yëpp loolu seqoon ak ñoom dañ ko daaw sëñ Fall noonu seqoon si Mahamadou Bachir. mas sama ne bis sëriñ Basiiru ma su ko fekk Kawlax def ko foog ñaar ngaru ñaari fan ba ñuy tàqali ko keroo da ko la yónni ku ñuy wax Moodu Mataar joxum mu woo ko la ko sama doom sàngam di bu ak bi sàngam féete la naa la ko da koy joxe mu dem këram la tàmbali ci moom ba ci suuf nag ku ci dem wut ko ku ne bàyyi la naa la ko seqoon nañ nee na mooy itam ci làmmiñam euh, sëñ Basiiru moo ko njëkk ni xanaa jumaa ji bàggee yoolu ko sëñ Fallu jox nga di ko jiite moo ko njëkk wax ku miin waxtaanee da nga miin ne ku rawoon sëñ Basiir la ci xel ci xalaat ak nu mu taxaw sëñ Mor Moustapha ci tax ci njëlbeenu yoon wi ginnaaw sëñ bi. ndax man nga ne sëñ Fallou sax dafa am lu ñu jote ci wetu bokk waaw ndax sëñ Fallou moom moom rek la doy woon moo ko doyoon ci diineem moo ko doyoon ci njabootam waaw ku judd ku ne sëñ Abdou Khadir mooy dem tudd ko waaw diineem it moo xëy jiital ko waaw. kon nit amul loolu loolu ak njaboot ak diine la am te sëñ Fallu sëñ Abdou Khadir rek la doyloo woon ci njabootam doyloo ko it ci diineem. bu ko defee li muy njëkk def mooy yónnee ci ñi jege fii ñëpp yëgal leen ni ñëw naa nañ ma leen man mii yónnee na ba tàyyi am na jamono yoo xam ne soxna Faati Amar mi bokkoon ci waa kër gu mag gi dana ma fa yónnee yëgluwul ma ko dama demal sëñ Abibu nuyul ma ko Cheikh Sey imaam Daaru Xuddos sëñ Cheikh Sey ma nuyul ma ci at yu mujj yi nga xam ne sëñ Aliou ñibbisi na it daana ma yónni sëñ Axma dama dama nuyu ma sëñ Axmadu ak sëñ Aliou ndax yëg na ne dugg si ne Daaru Xuddoos fii yëpp ci Daaru Xuddoos la kon ñi ko jege ñëpp war nañoo yëg ne mi ngi fi la yendu parce que ñoom ñëpp moom yendoog moom sëñ Abdou Lahad daf daan ne sëñ Abdou Khadre yàlla doona boole liggéey mun noo tàqali ko sëñ Abdou Lahad delloo ko lépp lu jëm ci lislaam ak doxeen mu mat ko sëkk moom itam daawuñ umpante ci lenn àgg ci li may wax rek ku nangu kilifteef la daaw dem këram gi ci Baxdaad li muy jege jege te demu tàggu si Sëñ ne ko fa laay bëgg fa dem tukki daaw tukki benn tukki te néew ko fa maa ngi dem tukki yi ko cër bu ma sëkk warmaa bu ma sëkk ñi mu seqal mooy Cheikh Sadio suñu champs yi bu Cheikh Moutada noonu la doon doxee ñoom ba ci jigéen ñi ñëpp. fii nga xam ne mooy Darou Mouhty at moom ni dana fi yëngu bu fi ñëwee gànn fi. si sëñ Abdou Khoudous la daa daal daana fi yàgg lool te it da koo saxal at mu ni du manqué men men men at bu yeggee ci waxtu woo rek dana ñëw euh, noonu lañ meloon te noonu mu mel ak sëñ Chouaïbou nag ni la mel sëñ Abdoul Ahad ni la mel ak sëñ Sarif ni la mel ak sëñ Mourlan ni la mel ak ñëpp ànd na ak sëñ Mourtada ñu dem fa yàlla baax nu ñu ne ca saal ba ca penku nun ñeent ket man sëñ Cheikh May ak ñoom ñaar ñoo jëm yu tedd yooyu ñu tegal leen li mu naan ñuy naan ñoom ñaari ñëpp ñuy naan am diir bu yàgg kenn naanatut sëñ Abdul Qadir ci boppam defe ne sëñ Mourtada dafa noppi mu joxañ ma Abdou Sawad jox ma kaas sëñ ma barkeelu ci Abdul Qadir moom ma ko njëkk jox ma kaas sëñ bi ma barkeelu ci ma yëkkati kaas sëñ Mourtada jox ko mu daal di ci góox teg sëñ Mourtada laaj ma ba sëñ bi ma daal di koy jox ba sëñ Abdul Qadir mooy mu góox ma door a boole ñaari si jox sëñ Cheikh may mu góox mooy fab la jël si naan nga xam ne wala ne ñoom ku ci gis sa morom sëñ Tuubaa la cay xool waaw du gisati boppam sëñ Tuubaa rek la cay gis day mel ni nit kuy seetu bu xoolee seetu bi du gis keneen nit boppam lay gis moo tax ku ci ne fa nga teg sa bopp rek nga teg sa morom te muy dëgg ci ñoom. maa ngi fàttaliku sëñ Blaat sama doom ji keroog ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu buñ ko war a tudd fii ci dindi damaa fekk sëñ Blaat tubaabelal loolu 1974 la ma ñu fekk Cheikh abdou Touba la nako kat da am ku am tudd am ku génn sama soxna yi gannaaw suba Cheikh Abdou Cheikh da bëgg nak mu tuddu ko Cheikh Abdou Lahad mo ne mako tuddu ci ba yàlla bañ ne suba la gént li mu ñëw fekkun fe ci kër sëñ sëñ Fallou gi indi indi daal di wax sëñ Abdou khadir la bëgg mu tuddu ci ko ndax mo la tuddoon. damaa mu tudd kii ndax ngeen bokk fi nekk. sëñ Abdou Khadre daal ñëw ci bis eh, daal di ko tudd. Eh, sëñ sëñ Abdou Lahad mi ngi mi ko ñu ngi ko tudd muy muy sëñ Jili ñaan ki ki ñu wax naan Jili Jili Abdou Fatah. Cheikh Abdou Khadre. Eh, mbul ngir sama jëm boo xam ko mayal boppam. yàlla def daal waxtu laal la daal bi jeex na booba yàlla def maa ngi def maa ngi am tool darkase bu naat wala léeg-léeg naat bi ñëpp lépp woon na booba tool darkase moo des foofu yàlla dogal njëréer yi ñëw daal di koy wax ah ñeneen ñi dañuy ñëw ak ak sëñ mu daal sëñ ma woon jàpp jàpp ci leen jox ko mu daal si jàpp leen jox ko mu daal di ñaan daal di tuuti ba ñuy dem noonu lañ jógee rek dem loolu loolu moom fa fi man la ko defee loolu fan la boobu xew-xew boobu karaw moom fi man la ko defee moom moo ko mayaloon boppam ngal la goo xam ne moo ko mayal boppam galaat moom moo ko mayal boppam rek. Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu dem ànd ak délégation bu mag jiitu ko jiite ko jubal Touba man booba maa nga bitim réew waaye ànd naa ñu bari nag ba mu demee jubal ci Mawlana Cheikh Abdoul Qadir Mbacké jaal ko kilifaam magam ni mu nekke magu ki wéy te mooy sëñ Abdou Lahad moom Cheikh El Hadj di magam mu jaa mu joxe ay njaalam tabaarakallahu sëñ Abdul Qadir bég kontaan ndax ñoom ay mbokk lañu ci wàll yépp mbokk lañu ci wàllu Mbàkke mbokk lañu ci wàllu Busoobe macha allah ak afe bari nañu mbokk gi bari mbokk gi yaatu na yàlla dogal mu mënoon jàll rek dem waaye mu toog fa ba julli jumaa jot mu ànd ak sëriñ bi Cheikh Abdul Qadir dem ca jumaay sëriñ tuuba radiyallahu anhu jooxe fa julli jumaam taxaw ci premier sàppe ak mboole mbokk jullit yam fa taxawandool ak la fees jàkk jàkk biti jàkk ji ak fu nit kenn amul foo teg see tànk ci ni ma ko gisee ci télévision ba ba ma nekkoon ci bitim réew xutba xutbaal sëriñ Abdul Qadir Mbacke radiyallahu anhu sëriñ Abdul Qadir Mbacke kabbar kabbaram bu réy ba jiite jumaa ja akbar allahu akbar la ilaha illa allah ñu ne Mawlana Cheikhul Hadj Malick mi ngi xutbal Cheikhuna Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lu ko gën a rafet lu ko gën a neex ci xol ca ña seen xol leer ak ña bëgg mbaax te ña ko bëgg nag bari nañu lool ña seen xol leer itam bari nañu lool ñu dugg ci julli ba ba ñu sëlmal ba ñu sëlmalee kàddu yam wax. li ma sàkkoo ndigal ci kilifa gi. الحاج عبد العزيز سي نينا غناو بمسكو ندغال سي كليفا جي موي الشيخ عبد القادر المكي موي الشيخ عبد القادر المكي أيده الله ونصره وعمره سيمبيني يالا نكو يالا دغرل ديمبليكو وجمع فيه ما تفرق في سلفه الصالح من العلم والعمل والولايه والارشاد sëriñ bi ne mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla da koo séddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla ko yàlla dajale ci jëmmam ji moom Seydi Abdul Qadir wa manaafi'a al-muslimiina ajma'iina fi mashaariqi al-ardi wa magharibihaa sëriñ bi ne mbooleem yiw yi nga xam ne njëriñi jullit yi la yal na ko yàlla dajale ci jëmm ji moo xam ñi dëkke penku la walla sow wala bëj gànnaar sëñ Fallu maa toog fi moom ñuy wax mu ne Abdou Khadir du ci gone yi kat kenn waxuma moom maa mu ne du ci gone yi de ci mag ñi la waa ji ci mag ñi la du ci gone yi lii maa toog mu wax ko waaye li ma la jëkkoon wax ne mën naa am moom lu mu ci seeral ci moom sax am na leen lu koy féetale waaye nag la Cheikh Moustapha seeraloon ci moom ah loola kenn du ci kenn du ci kenn du ci mën a féetale dara ah. ndax lu mu xam ci moom la ak lu mu def ci ak lu mu gis ci moom te sëñ Abdou Khadir amul ñaari melokaan lii muy wax a yow ci biir néeg bi bu génnee ci mbedd mën nga ko wax ak moom ndax dëgg rek lay wax ak yow sariya rek lay wax ak yow euh, li lislaam bëgg rek lay wax ak yow li sa borom tere rek lay wax ak yow loolu nag ku ne mën na koo wax fu ne ci loolu rek la nekk. jar na ku jaay sa cosaan ba te ko bët sàkku ci ñaan lii tax ku juddu seeti ko ku faatu it wooyi ko bambaa ko wax nu topp ko ngir ku mu jullee nga dem ji naan kon nag bu nekkee fii fi nun sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke doonoon ab yarekat di ab jàngalekat sanc ay dëkk yu bari ci biir réew mi ngir tarbiya leen bañ defaru tarxiya leen it bañ àgg ci yàlla fonkoon liggéey lool te daan dundee aw ñaqam ngir bàyyi gum bàyyi woon xel li Sëriñ Tuubaa waxoon ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami mu doonoon koo xam ne ku amoon yërmande la ci jaam ñi daan leen dimbali ci seeni soxlay àdduna tabe woon lool ba xàmmeelu woon sax ku koy jox ak ku koy laaj ak jaamu yàllaam ak fonk sunnaam di loo xam ne néew na nga gis ku mel ni moom muy loo xam ne sëriñ Touba moo ko fàggul waaye di loo xam ne it way juram wu jigéen di soxna aminte bu sa fàggul na ko ko muy koo xam ne moom Cheikh Abdoul Khadir dundam gépp daf koo def ci jaamu yàlla ak jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi muy xidma sunna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 soixante-neuf bi mu fi nekkee fi daar yi nekkoon ci jamono yi bi sëñ gannaaw sëñ Fàllu diggam bi ci xalifa si suñu suñu blaat mu fi nekkee boobu sëñ mu moo doon jëwriñu kër gi jamono yooyu eh, ba sëñ Tuubaa daa def rek di leen di leen eh, digal lu baax di len tere lu ban di len digal julli sirr nak julli wa julli mom da da wax bu ne ci daara ji di retu julle koor ya da wax ko xamne ki man nga ko boole ak liggey bi nga boole ko ko munta boole nga baye liggey bi ta war wor bu de julli da ngay bu waxtu wi jotté nga dem japp julli soo soog a ci liggey bi. mu fi nekk san bi liggéeylu ci daara yi lim ñu daan njëkk wax mooy képp koo xam jamu da nga sukk jébbul da lay wax ne la na nga jaamu yàlla te liggéey te wattandiku tooñ ndax jaamu yàlla mooy taxa dem àjjana liggéey mooy taxa am loo liggéey loo jaamoo yàlla wattandiku tooñ mooy tax mucc wala commencé wax ba noppi ñi nga xam ne ay jëwriñ lañ dalen di wo wax na len yeen ñi nga xam dañ leen denk gone yi bu won liggéeyatee ba julli jot na ngeen dem japp kenn jitu samp sab gop ngeen julli ba nopi dor dellu ci liggey bi. fii gone yi nga xam ne ñoo ma fi fekk ci daj gi yebulo fi ak ñi fi seeni bokk joxe ñu fekk ba fi mbooloo la ñu xam ne ci ñoo xam ne boo bi lañ ko deg dañ na fekke na lo waye fi ñi fi terbi yo ba mu wàcce leen ma xam len ñu xam ma ne sëñ Tuubaa daa jëflanteeg taalibe def na ko ñom ba ma sëkk dara di dara dara dara di dong ngay nak jamono yooyu baxdaat gi wa ay juroom ñaari daara ñoo fi nekkon juroom ben daara mo doon daaram ak daara yi sëñ Moodu juróom ñaari daara jamono wowo nak mom sëñ bi moo daa dikkal boppam ci daara yi dañu fekk ci tool yi mosaan dikk fi ñu bayee lay taxaw ku ci manqué mu laaj ko mu xamoon na ñëpp moom kenn ku ne say waajur la daan laaj doomi diw doomi diw jamono boobu itam naka jekk nag daan moom lu muy wax lu ne dala koy misaalal ci eh, loo xam ne da nga ko mën a jàpp mooy mbay mi boo mosaan di bay dalay wax na la euh, tol des ko sukkandikoo yalla la ñu sukkandikoo ndax bo baye ne manam li ñu wax yalla yalla bay tol da na wax ne yalla des ko booleeg dara da ngay gëm yalla ba nopp bay sa tol ndax man nga bay ne dama bëgg dundu bay ba nopp lu mu tutub dundu am ca maanaam amu ca lu mu tub dundu te du tee nga dundu ba déwén kono yalla mo yor dundu tal wi na dikk fi moom it nag ku fi agsi boo dikkee te am xel mën nga fay jëlee loo xam ne da nga ko jëriñoo foofu ndax li ma lay digal mooy yàlla nee na bi nee sëriñ bi nee am na mag mu dikk moo xam sama kanam la agsi nuyu ko noo damay mag te bëggoon lu dimbali ko ci ay ñaan ba nga bëgg nga wutoon ci loolu mooy ko soo na nga jàpp ci alxuraan ak xasaayid lépp ci alxuraan ak xasaayid alxuraan xasay lépp loolu la jàppoon moom la digle yi tollu woon naa ci ay diggante yoo xam ni amoon naa ay tolof tolof ni ko sëñ bi de am naa ay jaaxle man de am na lu ñu teg ci samay mbagg te jëfuma ko mu ni ma de yàlla moo indi dogal mais daañu def ci def ñaan te amna yaakar ni man mi di wax yow yalla du lo sama ñaan lolu mu ma wax mel balu fetal bon nu mako fay hmm doonoon koo xam ne nag ku yërëmoon binde fi la rahmatu bil khalq te lolu mom nit ku yalla ku jégué suñu borom lolu ci say mandarga lay bok moy ko xamne dem nga ba yalla bëgg la ndax ci hadith yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam bimu mu ne man aada li waliyan faqad azantuhu bil xar dafa bam ba mu waxee nit ki namuy muy jaare ba jige suñu borom dafa wax ne day dem ba suñu borom beugal ko bopam kon beugel go nga xam nitu yàlla yi dañ fay ag dafa bok ci màndarga yi yow it nga wëlbatiku beug bindé fi seydou khadir kon agon na fofa ndax yàlla dafa waxoon ne ta'ala sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon al khalqu ayalullah wa ahbul khalqi ila allah anfa'uhum li ayalihi sëñ bi itam ni mu bind woon mooy képp koo xam ne kii mu njàqaral saayir wala batin faaw sa xel daj ko boo xamee ndax ko fu masaan ñëw ku ne yàlla saafara ko li ñuy wax naan mag du xamee na xam bi ci tab bi ah kay sëñ waxaay dana xam ne danga koy nax mu tàbbi ci dana danga dana da nga xam da nga koy nëbb dara it mu tarfati bañ ko jël sax bi jëlee war na gisuma ko tabit néewuma moo ko gën def ci àdduna waaye néewaa na ko ko ci fekk koo xam ne li ko gën a neex ci àdduna mooy am ba joxe am ba joxe jàpp na ne moom moo dig dundam saa yu amee lu ko naq rek nit dañ ko teg soxla moo laa mu ci jiba ji néew yàlla dafa am jikko joo xam ne nii moom la wuteeg doomu aadama yi mooy yàlla loo gën a laaj mu gën a bég ci yow gën laa jox doomu aadama loo gën a laaj mu gën laa foñ gën laa sori say baxaat nag jikko jooju niru ko yàlla sunu borom kooku daal mooy Cheikh Abdoul ci njub ci bëgg lu baax ak yéwén ak amal njariñ nit ñi xam na xadis buy wax ne eh, ki gënal yàlla mooy ki gën ci njaboot gi ndax njaboot gi nit ñi njabootu yàlla lañ ku gën ci ñoom rek yaa gënal yàlla Cheikh Abdoul nag kenn du werante ne ñi ko xamoon lim taxaw ci nit nax nañ ko ci nu ne nit yor na ordonnance woo xam ne wenn kër lay doon saa bu amee soxla la ñoo ne dama am mu ne ko ñaata mu génne nga ne ko nanga mu génne jox la fonk nit ñi nit doomu aadama ba soxla su ko waay wax du ko xeeb kër yi mu dugg ngir tudd ay doom ak lim taxaw ci armée li ngir julli ay néew kenn xamul mu toll te am na ci ñoo sax nit ñi dañuy foog ne fi yàlla teg daal waroon naa weesu àgg ci ñooñu waaye moom doomu aadama la fonk ba amul ku tuuti fi moom day jàpp ne jaamu yàlla lay lay lay jëflanteel kon yàlla amul lu tuuti taxawaay boobu la amoon ci nit ñi ba tax yàlla dogali ñëpp nangul ko mooy koo xam ne ay taalubeem ay soppeem mën nañu wax sax ay soppee di ëppale ci taalibe far ñëpp ñëpp ku bokk ci yoon wi ba ci ñi bokkul ci yoon wi ñëpp ko nangu la foo tudd ci Abdou Khadre ñu la xayartu kooku jullit tiggi la nitug sunna la sunna gi moom foo ko takkawee suna ko ci ni mu ko fanke woon ci ba ci yu sew sewaan yi nga xam ne nit ñi dañ ko bàyyi xel Serigne Abdou Khadre da ci doon dund sunna ci col mi ci doxiin bi ci waxin bi buy dugg ci dara wala muy génn amut lu muy jëndal jataay bu mës a toog jataay waare jataay fekkam la ma ngay nettali siira ma ngay firi alxuraan di jàngal nit di ci jox ay duruus ma ngay fàttali nit ñi Sëriñ Tuubaa mi ngi waxtaane ak bokk loolu moo ngi leen digal. ngeen sax ci jaamu yàlla. nee na mi ngi nuyu digal nu sax ci jaamu yàlla. ci sunnat rasulillahi sallallahu alayhi ci sunnat yonante ndigal Sëriñ Tuubaa. tey wéy ndigalal Sëriñ Tuubaa. ndax Cheikh Abdou ko ñuy mën kon su su suñu diggante ak Cheikh Abdou Khadre moom euh, buñ ci wax ba ba ba ba déwén du jeex. ndax mën naa ne ci lim gën a bëgg ci la ko fi yàlla jëlee mën naa ne ci ak julli la wàcceeb liggéey ndax ba tey sëlmalut julli ga mënu ca dara waaye boobu noo ko doon tey maa ngi jiltare muy sunu ci taay ju njëkk ji ca toog jógaatut la mujj wax ci àdduna it dimbale nit rek la xam la ko mujj waxal joxal ma diw joxal ma diw joxal ma diw tegu ci fukki minute jóge fi kon lam doon ñaan yàlla naan dafa bëgg féete di jaamu yàlla ba di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi yàlla dimbale ci jóge yàlla li mujjee def it nag ak ci mujjee def jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi

lii mooy julliinu sayxuna Cheikh Abdou Khadre wàcc na farata lay julleeg sunna lii moo ko war mi ngi ci yoon. ni ma leen daan dénk moom laay dénk ba tey. ni mu leen daan dénk. démb ak barki moom la leen di dénk ba tey. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. ci sunna. ci sunna. sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tey ak tooñ. te sax ci ak jub. te sax ci ak jub. te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ndéewaatee bi. ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ak ndéewaatee bi. te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri adduna ji ñuy seen kilifa itam. waaw ngeen di muraalante ñoom. ngeen defal ñoom mu daara ba ca gën ba gën a rafet. waaw te lépp loo xam ne luñ soxla lañ soxla soxla lañ ko. Mm. te suñ suñ diine téyewu ko ngeen ngeen ànd ci am ñoom. nee na digal na itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñu diine térewu ko ngeen ànd ci ak ñoom.